boppam fa lañ jëm de parce que nit mënu la fenal mu ñu topp ba nga xam ne kii day fen nga yóbbu ko ci yoon ñu ne lanceur d'alerte la dañ ko protéger ay waaye ndaw sàmba gën a yomb Basiru te moo bàyyi yii nii ku dem bay boole nit war nga am fitu boole ne di boole naa ko ñeeta ñu defi boole nit sax te feeñu ñu mais da ngay gis nit kuy def naka su noonu nga dem ba police ne ana commissaire laa soxla doo def plainte sax de commissaire recevoir le bureau nga ne ko ah, suñu koñ bi naa fa nangam ak nangam moom moo lay protéger boppam kenn du ko xam. dina jël ay nitam ñu dem enquête ba xam loolu la yow gis nga koo xam ne dafa làq suuf of nag a ngi fii ci VDN bi soriwut mhm. doxantul ndànk bind sa lettre doo def sax tur nga dugal ne ah diw mi làq na diw làq na of nag dafi enquête am loolu gën a yomb waa faaw eh, loolu mérité na tamit euh, euh, euh, protection je crois du moment où yenn saa yi dañuy gis yenn document yu confidentiel mu ne ci mbedd mi tey tey boo bindoon sa lettre signé ko Abdou Nguer yóbbu nga ko ci pet ñuy def audit mais à tout moment mën nañoo xëy gis lettre ba ca mbedd mi. boo ko yóbbu fa nga ko war a yóbbu du génn boo demee ba ca commissaire ba. wax ko li ñu ko wax wala ca commandant wala nga dem ba bureau procureur xaaral mais gisuñ fi ay avis de justice ci mbedd bi euh, mu taxaw yow tamit déggoo man la yooyu jógewul yooyu jógewul ca commissaire ba ku ñëw di dénoncer xam nga ki porté plainte mhm. nëbbatuwul mhm. mais yow da ngaa ñëw di dénoncer ne ça da ngay alerter mhm. loolu alerte la di ñëw ne ah commissaire man kat gis naa gan ci koñ ba kii nag xaw ma ko ci koñ bi te li ma ko gis nag da tey na sama xel boobaa commissaire ci boppam jaral na ko sax de wut ay quelques éléments ñu dem ca koñ ba di rond di xool ba fajal la li nga bëgg doo ci feeñ du ko wax mhm. loolu gën a yomb waaye yow daal sa téléphone nga yor immeuble bu rafet boo romb xam ne sa bàyyi mënu koo am nga iñaane ko bàyyi jàmbur filmer ko taqal deru jàmbur maanaam pour maanaam loolu maanaam Bassirou Diomaye Faye lii ñu ko ñu dugal ci boppam bi maanaam léegi boo ko laajoon ne ko lii mooy lan lu muy tekki lan la la war a wax parce que lu mu lay tontu xaw parce que bu nee laaj ñii dama leen xanaa dig ne ko waaye président yow am nga ay agent am nga press am nga gendarme am nga police yow léegi yow kon yow ñi ngay lancer d'alerte loolu leen di doye yow kay neel citoyen yi dafa am lu gën a gaaw nee la ah citoyen yi képp koo xam ne gis nga luy yàq ci sa koñ gis nga luy yàq demal police ba la gën a jege wala gendarmerie nga dénoncé ko. Mhm. boobaa doo ci feeñ. Mhm. caaxaan baaxut am na yeneen loi yu ñu war a gën a tëgg nag ñii di saaga kilifa diine yi kilifa diine yi la ñu war a def sax ay institution ba nga xam ne kenn dootu leen ñemee saaga looloo gën a nekk farata. tey dañoo war ne xalifa généraux yi dañ leen a war a protéger c'est-à-dire que waroo mën a jug jël kàddu ko ñaaw di ko teg ci sëñ Muntaxa ndax daa yore mbooloo te bu ci dawalul yéen maa ne su ne mbooloom jug leen faj ko doo doy mhm. ñu ne kooku nañ ko protéger ba nga xam ne Abdou Nguer bu dalee ci kawam rek automatiquement procureur day jàpp la balaa ay taalibim di réagir comprendre nga mhm. ñu ne nañ ko def ci comme Sénégal moom am fi këru diine yi fi waaye na comme ñoom dañu leen doon jiiñ ne dañuy xeex tarixa yi kon man nañoo dooleel ñi leen di saaga mhm. te man fi mu ne nii ñoom ñoo war a setal seen bopp nañ protéger kilifa diine yi loi yooyu moo fi war a am mhm. protéger institution yi loi yooyu fi war a am mhm. yëfu banditisme yii ñu bëgg def ci bopp nit ñi ñu bakko lance d'alerte yii lii ñu bëgg a yëfi bandi la rek yëfi wuyu la nit ku amatum xëy nañ wutal xale yi xëy ku am xëy doota la dénoncer n'est-ce pas ku am xëy doota la nekk di wër di filmer di wër teereeb jàmbur moom da nga jéem a man sama yoon newu ci ku moom ku sàccu teere ku ko luubar sama ngañ newu ci ñoom lañ jonk réew mi lu waaye sàcc war nañ koo xam bu ñuy xaar man mii moo leen leen diw sàcc na kon duñ jàpp sàcc <laughs> leer na Adama ñu ñëw ci euh, waxtaan wi ñu nar a amal rek nga xam ne dinañ fa aborder du mooy euh, thème officiel bi mais bokk na ci thème yi nga xamante ne war nañ ko aborder mooy li li ñu jógee wax ak ab du lanceur d'alerte loi bi nga xamante ne le président euh, Bassirou Diomaye fay bi mu prêter serment jëlo waxoon na ko demande leen benn loi boo xam ne da leen di protéger war nañ ko fa waxtaanee au-delà de ça aussi ñu waxtaane la sécurité des journalistes. Ah, ah, foofu tamit war nañ fa évoquer loolu noonu ca ca bés boobu nga xam ne la ñuy jàpp pour waxtaan ak ministre de la communication. exactement donc damay dooree rek ci li nga xamante ne moom mooy la sécurité des journalistes je pense que mérité mérité bu bu bu énorme parce que connaissant le rôle de mhm. ci am na ci yenn dëkk yoo xam ne yàggul dara ci ci ci ci dëkk je pense Guinée la xaw ma xaw ma mhm. benn journaliste boo xam dafa demoon benn benn événement après kenn gisaatu ko. Mhm. ça veut tout xamante ne am na. même ci réew comme Sénégal gis nañ ci ci ci période bi passé doon nañ fi japp ay journalistes di leen tëj ak yu ni mel mhm. donc je pense que buñ ñu leen gënee sécuriser day nekk lo xamanteni luñuy lu ñuy magnifier la lu rafetlu la donc lool aussi nañ ci waxtaan gën ko gën ko gën ko dolel mais est-ce que du doon contradiction un peu ak li nga xamanteni ne peut-être nemmeeku nañ ko sen sen PM bi lu muy lu actuellement à l'égard des journalistes mhm. xëy na mën a doon benn contradiction wala xeyna bok peut-être ñom dinañ ko jëm convaincre ba mu xam carrément li nga xamanteni mom moy le mérite bi les journalistes am mu daal di leen kay mu daal di leen kay jox ben bi aussi mom mooy ci ci lanceur d'alerte lanceur d'alerte je pense que un jour mus ci mus ci wax. Mhm. c'est très bien nak c'est très bien ñuy ñuy ñuy am ñuy am yenn renseignements yi xëy am na ñoo xamante ni. Mhm. donc dañuy soxla yenn renseignements yo xamanteni amuñu opportunité am ko. Mhm. donc il suffit wala il faut am ko xamanteni da koy da koy yëkëti pour jox ko. mais je pense que lanceur d'alerte musul juk fi nga xamanteni mom moy mom moy Sénégal Sénégal yépp ay lanceur d'alerte la. ci kër gi. Mhm. ci kër gi lay commencé parce que Sénégal noonu la noonu la bindoo. Mhm. ci kër gi lay commencé kër gi. bu kenn defee par exemple man ak Faat man ak yow wala Abdou Nguer bu ñu bokkee kër bu Abdou Nguer defee bu ma Abdou Nguer defee loo xam ne ma ko def damay dem ci sama papa wala ma dem sama yaay wax ko ko. Mhm. ko Abdou Nguer def na ma nangam. bu ñu génnee ci penc mi nag ci penc mi. am nañ ay chef de quartier. am nañ ay bàjjenu gox. Mhm. am nañ ñi nga xamante ne ay acteurs communautaires lañ. ñooñu loolu ñëpp dafa am benn rôle boo xam dañ koy joué tey da ngay gis bi koo xamante am na lu muy dund ci koñ bi. Mhm. day dem directement ci ki nga xamante ne moom mooy bàjjenu gox bi interpellé ko wala mu dem directement ci ki nga xamante ne moom mooy chef de quartier bi inter interpellé ko wala ñi ñuy wooyee les acteurs communautaires yi nga xamante mhm. am na benn cër boo xamante ne am nañ ko ci koñ bi a def ñu def ko ci. donc mhm. je pense que lanceur d'alerte mosu fi jógee mhm. chaque fois am nañ ay lanceur d'alerte renseignement généraux yooyu ñu ngi fi mhm. police mi ngi fi gendarmerie mi ngi fi comme ni ko ni ko Abdou Nguer waxee donc je pense que euh, lanceur d'alerte je c'est une boo xamante ne c'est un peu un peu un peu un peu insensé laa ko mën laa ko mën a tuddee parce que am na fi am na fi lu fi am lu fi am ba pare la bàjjenu gox mi ngi fi leneen ak leneen mu ngi fi donc ñooñu dañ leen gën a dooleel rek li ma d'accord mooy ñu gën leen dooleel gën leen jox ay jumtukaay gën leen jox li nga xamante ne moom mooy ay comme ni ko booy di waxee ay link parce que xëy na bàjjenu gox bi am na benn fee bu am ci koñ bi mais bëgg na ko bëgg na ko eggale fenn ci benn niveau bi mais xëy na xamul yan itinéraire waaw mais loolu mooy justement protéger euh, kii yooyu noonu non protection bi day ñëw ci Mhm. protection c'est-à-dire il faut une différence entre protéger et renforcer. protéger et mhm. renforcer du ben. renforcement moy nga gën le gën jox ay kay wala gën le may doole bi nga la protéger c'est si toutefois ñu lancer. Mhm. benn benn benn alerte wala surtout fois ñu génnee benn information ñu nekk en sécurité loolu mooy protection donc bu dee dañ leen di protéger mhm. loolu mooy protection mais bu renforcer nag mooy bàjjenu gox yi nañ leen gën a jox ay link nañ leen gën a gën a gën a gën a parce que si nguuru Macky Sall gisoon nañ bàjjenu gox yi dañ doon fayeeku salaire mhm. bàjjenu gox yi dañ doon fayeeku salaire si ki nga xam si nguur ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall te dafa am benn rôle boo xam dañ koy jouer je pense que loolu rek lañ soxla te amul benn bàjjenu gox boo xamante ne je pense que dinañ ko attaquer parce que li ñuy défendre yëpp c'est le bien-être de leur communauté donc lanceur d'alerte yàgg na fi benen bi moom mooy dañoo nekk ci benn Sénégal boo xamante ni. Mhm. Sénégal dañoo baax trop wax dëgg fa neex yàlla dañuy wax sax ni on est le pays de la teranga mais dafa am benn affaire boo xam dafa am c'est-à-dire dafa am benn soxorante boo xam ne dafa am suñu biir tuuti loolu nañ ko nangu. Mhm. tey nga ni da ngay protéger les lanceurs d'alerte. Mhm. man maa ngi dëkk ci koñ bi ak Abdou Nguer ma am ay ay indifférence wala ma am loo xamante ni c'est-à-dire lu lu négatif la à l'égard de Abdou Nguer wala ma am ak moom ay problème mun naa créer benn problème ni Abdou Nguer moom moo ko def. ñëw jox la ko ma lancé alerte boobu noonu ni Abdou Nguer moo def nangam def la tout ba ba coup boobu noonu ma monté ko ba mu jàll après Abdou Nguer boobu ñu jàpp ko tëj ko. non balaa ñu ko tëj dinañ def enquête euh, justement parce que ñuy ñëw rek ne Abdou moo def lii ñu jàpp Abdou tëj te xamuñu réellement xoo vérifié wuñ ndax def na wala defu exactement mooy li ma lay wax c'est-à-dire mun nañ ko orchestrer d'une telle manière cest dire fee boobu mun nañ ko orchestrer d'une telle mu doon benn fee boo xam bu fiable la Abdou jàpp na ne peut-être man ak moom amuñu benn indifférence wala loo xamante ni par exemple am na a ngi nekk mun naa ko créer benn problème boo dañ koy jàpp la mais dans le sac ko yóbbu ko après lanceur d'alerte boobu noonu bu dee da ko da ko da ko relaté après kooku noonu dafay am ay problème c'est-à-dire li ma bëgg a wax mooy dañoo nekk ci Sénégal boo xamante ni Euh, niveau d'instruction bi am na mais dafa baax ci ñu ci ñu bëree bëree bëri dañoo nekk ci Sénégal boo xamante ni divertissement dañ ko privilégié au détriment de c'est-à-dire leneen ak leneen c'est-à-dire mun nañu romb sax ci loo xamante lu dëggu la ñu divertir ci comme lanceur d'alerte la mu ñëw fekk benn affaire boo xamante ku yor comme ak ngeen ko ku yor këram wala ku yor koo xamante ni c'est-à-dire yor ay ay juróom wala leneen ak leneen mu ñëw fa ni xëy nak nag yenn entreprise yi parfois dinañ ko soxla parce que am na entreprise yoo xamante ne ni ñuy exploiter doomu sénégalais c' est excessif. Mhm. c' est très très très excessif exploitation bu excessive la ñuy la ñuy exploiter les sénégalais donc sur ce foofu dinañ soxla ay nit ñoo xamante ne il faut ñu ñu entendre leen ñu wax. parce que am na loo xamante ni il faut ñu wax ko parce que man am naa je connais des gens yi nga xamante ne entreprise bi ñuy liggéey non seulement heure de travail bi ñuy liggéey heure de travail normalement huit heures la mais dañuy liggéey plus de 14 heures de temps par exemple mais képp koo xamante ne da ngaa jug pour wax ko ci. yow ñu jiite entreprise boobu noonu dañ lay dañ lay faagaagal même sénégalais yi nga bokkal yi nga bokkal boo bëggee organiser grève wala autre dañuy ñëw par exemple bu dee Abdou dafa envisager organiser benn grève léegi dañuy dem ci suuf bu ñu ko yëgee dem ci dirigeant yi ñu leen kat diw dafa bëgg a organiser benn grève nangam sangam ñu jël Abdou Nguer ko yow ñu yëgati la ci benn rang bu gën a kawe loolu aussi day nekk problème quoi qu'il en soit lanceur d'alerte comme ni ko waxoon sànq peut-être nekk na benn affaire boo xamante ni dinañ ko soxla Au moins il y a des xamante mais on a des lanceurs d'alerte ñi siy nekk ci wàllu woowu jamono ji nañ ci bàyyi moom mooy les bàjjenu gox les chefs de quartier les renseignements am na solo lool Abdou euh, laata ñuy euh, ñëw rek di yëkkati jotaay bi waxtu wi li ci des bareetul laataa loolu rek lan ngay àddu yaa ñuy utal sécurité journaliste yi ñu sécuriser leen te waxtaan wi nga xamante ne nar nañ koo amal ñoom ci fan yi di ñëw uh, war nañoo aborder comme ni ñuy aborder loi boobu bii nii ci lanceur d'alerte yi dañuy aborder loi boo xamante ne nii dafay uh, sécuriser les journalistes uh, loolu lan lay lan lay lan lañ ci mën a xaar wala lan lay nekk en ak bu ñu gisee taxawaayu euh, le PM ak ni mu ni mu doon euh, pointer du doigt les journalistes. ñoom ñoon kay ñi seen ni seen luwaay ak seen affaire yi daf maa jaaxal quoi. parce que ñoom nag yu amul bopp yu amul genn rek ki la ñuy nekk. ah déet am na bopp suñu sécurité am na bopp. de am na genn journaliste ban ma fi seen journaliste bu amul sécurité ci ñoom ñoo la ñoom ñoo la fitnaan mais yéen journaliste yi fii nguur gi fi génn journaliste yi am na liberté de ñi doon def journalisme nag laa wax. xam nga ñu doon sàcc ay document armé di ko wane moom ñooñu waxuma seen i wax ñu mooy délinquant laa leen jàppe mais journaliste yi doon def seen liggéey liggéey journaliste mhm. ñooñu amuñu ñoon problème gisoo ci kenn ku ci am problème gisoo ci kenn ku ci def liggéeyam am ci problème mhm. ñu doon dem di sàcc ay document ak yàq deru jàmbur ñooñu rek ñoo doon am problème mhm. kon yéen wax dëgg yàlla problème moom bu ngeen ko amee ci gan ñi la yéen ak seen diggante gan ñi li may wax rek damaa baax di ci wax rek waaye yéen seen kóllëre la ma waxoon rek Ousmane ba mu leen woowee këram naan leen damaa demoon fee damaa feebar ngeen ngeen jël loolu yóbbu ko askan bi boobu ngeen ameel askan wi àq ba pare yaakaar naa nag àq boobu moo leen topp ba PM bi di leen fitnaal nii muñ leen rek yàlla baax na. xam nga ñun a nekkuñu fi pour faral kii wala kee ñun dañuy ñëw bu mbir amee. Nous ko déggee noonu lañ koy joxe informé juste et vrai ah, du sosal Abdou man du di sosal Abdou wala ma bëgg lu neex Abdou ba ne Abdou moo mel wala moo baax déedéet du ñu tagg ñun dañuy ñëw ñu ne mbir dafa am ñu dem xooli ne li moo fa am lii la ñu suñu bët noonu lañ koy la bu mérité ay enquête ak ko war mais dañuy informé juste et waaw man de mbir yooya ba mu amee la mu wax loolu la ñu joxe. la keneen wax it la lañ joxe. waaye wóoroon na ma ne léegi kay décider du ñun. man de wóoroon na ma ne. Mm-hmm. xam ngeen ne Sweet Beauté kenn du fa faj. mais da ngeen a lànk waxu ko. seen ko waxoon rek carte gitas non ñun mënu ñoo wax ki da fay faj ak faju la mu wax mom loolu la lay wax da ngay informer xam nga ñun informer lañu du jëlu ñu. waaw ay informer ñen juste mais vrai. wa mais wax nañ tamit suite Beauté la fa am joxe nañ ko. suite Beauté fi la li ak li lañ fay def xam ngeen ne du faju ak du xolal bu ñu tooñ wóor nga ma ne waa wax du deug mais nak bi ngeen ñëwé mhm. la may wax rek da ngeen a complot ak mom léegi nak complot mo tax Ousmane Sonko jim mu doon àndal yëpp yàlla taxul war na leen Pers be ci mujj war nako hmm nante la nak lima koy contre contre nante la ndax sama mam nee na bu yalla taxul ku ñëk war gagné nga. hmm motax chaque jour muy ñëk war gagné hmm gagné na indi ngeen ko am exi egg si ko ba au pouvoir mu yek tok ci kaw. Mhm. ne len sacc ngeen ñu len fay alalu rew mi te bu ñëk bu ma masaan wax bugan kay fay ca ci ci ngeen sor lay tok def pos ne dañ koy jaay doole nangam nangam dañuy xex nangam nangam tay nak <laughs> neena sacc la jere ngeen jëf. <laughs> jaajëfal nañ la ñu nit abdu waxtaanoon bi neexoon na bu baax xam na solo bëgguñu woon mu jeex waaye waxtu wi euh, ñu cërale woon euh, dafa mel ni jeex na euh, ñu war a yëkkati jotaay bi ñu fàttali ki rek ne tey ñu ngi amoon Abdou Nguer comme tous les mercredis muy chroniqueur Adamo